إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ۖ وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم am fas yéene rek yàlla na ko yàlla mottali te nangu ko yéene ko mboolem ku jaar di demoon yéene ko mboolem ñi fi ñëw di siyaar yàlla na yàlla nangu seen aj te yàlla nangu lu gaañ dugal ci aada yeeg soxla lépp rek ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا قالوا انؤمن كما امن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج السلام عليكم mbokki jullit yi mbokk yi fi teew gannaaw bu ñu santee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin li nga xam ne nag moo tax ñu daje fi muy innamal muminuuna ixwa di jullit ak mbokk jullitam yàlla subhaanahu wa taala am lum dogal mu war jullit mu war koo def mu am sunu mbokk sunuy mbokk ñu ñu bokk nekk fii di sunuy mbokk jullit di sunuy mbokk dëkkandoo yàlla dogal ñu demoon baytillaahil haram siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mottali seen ponk lislaam kon ñi ngi wax yal na yàlla nangu seen aj lépp luñ fa ñaan yal na ko yàlla nangu te barkeel ko sotti ko ci julli ñi bi barakati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di am kontante ci jataay bi muy jataayu lislaam fa tabaarakallaahu kenn ku nekk yaa ngi ñaan bés mu mel nii am nga bëgg-bëgg def ko kon ku yàlla may nga def ko nga sante ko yàlla yàlla ngeen ko muurloo yàlla na kaada yi rabbu bi barakati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam su ngeen gisee nag ñu toog fii di yëkkati ay kàddu dañuy sunu kilifa El Hadji Alioune Badara dafa wuutee jataay bii waaye moo fi waroon a teew yëkkati ay kàddu kon loolu moo tax ma toog fii wutu ko di siyaare sunu ay jaay ak sunu alxaaji yi yal na yàlla barkeen seen aj ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa di sant seen gidd ñi nga xam ne ñoo ànd ak yéen di seeni collaborateur muy El Hadji Khadim ak El Hadji Abdou Salam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jàppale woon ba ngeen def seeni i farata ak seeni i sunna di ñaan yàlla yal na yàlla fi yàlla fay leen El Hadji Khadim li mooy dëgg li ngay daj ci doomu aadama yi ak ni nga leen di taxawoo yal na yàlla fay la yal na yàlla barkeel la yàlla nga yàgg a taxawee yàgg sa collaborateur Abdou Salam Kébé wax dëgg yàlla am mbooloo mi ba ngeen commencé dem ba léegi ñëpp ñi ngeen ànd ay témoignages yu rafet yu baax ay sant ak ngërëm ñoom la ñuy yëkkati di ko jëmale ci yéen kon yàlla yàlla fay leen wax dëgg yàlla am seen taxawaay rafet na di ñaan yàlla nag. képp koo xam ne demagoo yal na yàlla yóbbu la nga siyaara ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne demoon nañ tim yal na yàlla may leen ñu mën a dellu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ndax lu baax lu doy te kenn ku nekk bëgg nga ko kon daal ñi ngi ñaanal ujjaaj ji demoon yal na seen kaara rabu bi barakati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te yal na yàlla yàggal ànd bi te gën koo rafetal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 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وبعد نحييكم بأحسن تحية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله ginnaaw bi ñu leen nuyoo nuyoo bu sell julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen dalal comme ni nga xam ne ni noonu la ko mbokk mi waxee léegi rek ne innama almuminuuna ixwa fa aslixu bayna axawaykum daje bi li ko waral mooy ay mbokk jullit yu nga xam ne nii yàlla dogal nañu bàyyi ko ci mbooloo mi dem jooxi seen faratay aj dem jaamu ji yàlla dellu bi bu ñuy dellu si nit ñi war a dajeek moom ñoom saafante ak ñoom nuyonte ak ñoom te dëkkwaay yi xaw a sore aslëf moo waral rek ñu dajale leen ci jotaay bi waaye lii du farata boo xam na ni dañ ko digle ci diina lislaam déedéet gox yu sore yi ku jóge fii mbool même mbooloo mi ñoom ñooy dem fële ñi ñooy dem fële loolu moo tax ñu amal jotaay bi su ko defee mën a dajale ñëpp ñi ñu war a ziyaar ñu ziyaar leen li tax ñuy ziyaar ñu jóge màkka ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nit ki bu dee dem na beytillahil haram yi ba ñëw yàlla mën naa def lee mu bokk ci aj yi ñu nangu te yonent bi nee na aj gu ñu nangu fayam du dara lu dul aljanna kon dajeeg ñooñu nga xam ne ni am nañu yaakaar ci ñoom saafanteeg ñoom nuyonteeg ñoom ñu ñaanal ñu ñu dem yaakaar naa ne loolu rek moo waral jotaay bi te loolu yiw gënu ko rëy kon ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala yal nañu yàlla mottalil sunu yéene yi nga xam ne ni moom lañu am te nag ñi nga xam na ni ñoo yooyoo kaddu gi tey jii mooy ñi nga xam na ni ñoom ñoo yóbbu woon xujjaaj yi ñu ànd ak ñoom dem aji jiital leen ànd ak ñoom ci manasik ak manasik yi nga xam ne nii yu yaakaaru la ànd ak ñoom seeni farata di leen xamal naka lañuy ñuy aje ñooñu yaakaar naa ne ñoom ñoo moom kaddu gi ñoom ñoo war a dalal seeni gan dalal seeni xujjaaj waxtaan ak ñoom jàmmante ak ñoom saafante ak ñoom kon ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala lépp lu luñ fi def yàlla ñu ko yàlla nangul tuutiwul nag ndaxte nga jégg ay jéego jëm ci ziyaare mbokk mu nga xam ne ni dafa demal baytillaahi alxaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis dafa am ku ko di waaxu waaxu yu yu waaxu yu gaaw a gaaw a gaaw yonent bi woolu ba mu ñëw ne ko sa waaxu yi dëgër na ana fan nga jëm mu ne ko dey man de dama am sama mbokk mu moo xam ne nii dama koo sopp te yàlla tax ñu soppante te yàlla tax ma toog lu yàgg gisuma ko ma namm ko lool jug dem ngir di ko ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa ngi lay seedeel ne yow ak sa mbokk moomu yéen ngi aljanna kon rawatina ku nga xam ne nii sa mbokk la rawatina jóge baytillaahi l aj aj gu nga xam ne nii daanaka mi ngi doog a yegg si nga sa dëjanteeg moom saafanteeg moom nuyanteeg moom yaakaar naa ne yool bi kenn xamul nu mu toll moo tax yàlla yàlla mottali yéene yi yàlla nañu yàlla nangul lépp lu ñu jëf ndaxte kat jaamu yàlla ay ibaadaat la ak al muamalaat ibaadaat yi mooy lan julli koor sàkk asaka muamalaat yi mooy lan jëflante bi nga xam ne nii moom ngay jëflanteeg jaamu yàlla yi kon ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla yàlla defal dégg ak topp ñu jox kàddu gi imam xaadim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamualeykum wa rahmatullahi jullit yi ñi ngi leen di ziyaare di leen bal ak te di leen balu ak te eh, di leen ñaanal tey sàkku ci yéen ñaan di am mbégte mu rëy nag ndax lii lu rëy la euh, kenn ku nekk kenn ku nekk jógee sa kër bàyyi si yitte yëpp ñëw fii ngir saafonte ak ñi nga xam ne ñoo demoon Makka aji loolu rëy la euh, lépp loo xam ne yaakaar nañ ko ba ñëw fii di saafoonte yàlla na ko suñ borom defal nuy sant bu baaxit nag ndax ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koon doon ñaan bi nuy dem ba ak ba ba nuy dellu si ñaan yooyu egsi na yëg nañ ko yéen na leen wóor ne képp koy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bañ fa taxawee ñaan yiñ doon ñaan ñépp lañ ko boole kon loolu it ak sant la ajji nag mu am loo xam ne képp ku yàlla dogal nga dem te ànd ak ñin àndal dana am leneen loo xam ne moom nga ci jànge ndax sunu borom dimbali nañu ba dem nan ba dikk te benn jafe-jafe amul fu war a dem dem nañ fa ñu war a jaar jaar nañ fa lu ñu war a def def nañ ko xanaa lu ci manqué rek yàlla na ko suñu borom motti leen eh, nuy sant bu baaxit nag eh, alxaaji Xaadim Dia ak alxaaji Abdou Salaam Kebe ndax dafa am benn wax boo xam ne man dama ko cee seetlu woon te muy lu am solo ndax bu fekkee ne da ngaa ànd ak nit nekkoon li mu bëgg mooy nu ñëw fii ngeen def li ngeen war a def delluwaat Sénégal te kenn bañ a manqué mooy sunu ndam wax dëgg yàlla loolu lu lu am solo la te ñoom ci loolu lañ nekkoon tey dañ koo wax. ojaaj yi nga xam ne àndoon nañu it ci biir maanaam dañoo dem ba kenn ku nekk ngay xool sa moroom ci lu mu nekk ngir bëgg ko kon loolu lu am solo la maanaam na leen waroon daal ñii daal képp ku ànd ak ñoom li leen ñor rek mooy a taxoon a jóg nga def ko kon loolu ñoo ngi leen koy seedeel te di leen xamal ne na leen ñëpp ñaanal nit ñaanale ñëpp ndax yëf yi yombul ndax boo àndeek mbooloo dama leen kon noo wax rek démb ne li tax yombul mooy bu fekkonte ne da ngaa yoroon fukki xar wenn yat ngay yor boo yoroon fukki nit kenn ku nekk am na loo koy sàmmee kon loolu bu fekkee yàlla suñu borom dimbali leen bañ ànd ak lu mat ay téeméeri di ñu tegal ñu dem ak jàmm dikk ak jàmm amul dara loo xam ne maanaam metti nanu kon loolu nan leen nan sant yàlla te sant leen ko ne leen daal noo ngi leen di leen gërëm di leen ñaanal te di sàkku ci yéen ñaan ñi ngi jéggalu nag bu baax ndax xay na wax ji moom suñu xol moo sedd rek waaye wax dëgg yàlla euh, ku tëlee wax lan kon noo ngi leen di dégg di leen ñaanal di ñaanal ñëpp ya di ñaan yëpp ñaan yëpp daal yal na ci ñëpp jot ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jër ngeen jëf asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bisimilah ma jox soñ àjjuma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 di ñaan yàlla mu boole ñu baal di leen masawu coono ci tànk yi ngeen yëkkati yéen ñëpp ñëw fi xanaa di jéem a gàttal rek ndaxte mi ngi guddi te dafay guddi te bala ndax mbooloo mi ñëpp mën a yeeweeku balay guddi eh, xanaa rek di sant yàlla bu baax a baax di wax alhamdulilahi rabil alamin eh, ñaan yi nga xamante ni moom ngeen ñu ñaanaloon bi ñu fiy jógee ñaan yi topp nañu dem nañ ci jàmm Euh, def nañ suñu euh, farata ci jàmm dellu si nañ ci jàmm li si des nag mooy jël lépp teg ko ci loxo yàlla mi nga xam ni mooy nangu oh, moom mi nga xam ni mooy nangu nag yàlla nangu euh, di ñaan yàlla képp koo xamante ni kii demoon nga yàlla yàlla yo delloo ku demagul it yàlla la yàlla yóbbu ginnaaw loolu itamit dañuy sant bu baax di gërëm organisateur yi ci jiital sëñ Khadim Dia di si di si teg seen Abdou Salam Kebe ak Alaaji Mubtal wax dëgg yàlla ànd ak ñoom jafewul dem Màkka lu mu jafe-jafe-jafe boo ànd ak ñi en tout cas te topp li ñuy la wax du jafe parce que dañu xam farata yi di la wax nii ngay def naa ngay def soo si toppee rek macha allah di nga euh, def sa farata ni mu waree li si des tey ñaan yàlla mu nangu ko wax dëgg yàlla jàppale nañu parce que 153 personnes ku leen yóbbu xam nga ni metti na ku nekk ak say humeur waaye ñoom gere nañ lépp yàlla may na leen xolu muñ yàlla may na leen nu ñu mën a gérer nit ñi ba nga xamante ni ñëpp def nañ ko benn amuñu euh, tépp bépp tiyaab boo xamante ni am nañ ko fa rek yàlla nañ ko suñu borom boole. Euh, di ginnaaw loolu yi tamit du ñu fàtte suñu mbokku A2I euh, muy télévision bi nga xamante ni ñi ngi doon topp du début à la fin commencé nañ ñu ba ñuy dem topp nañ ñu ba aéroport def nañ ay direct foofu ca Makka ba ci jouru Arafa bi retour bi tamit ba ñu wàccee fii fekk nañ leen aéroport Milan ñu gunge ñu ba fii ñu ngi gërëm waa A2I si monsieur Ndiaye ba ci journaliste yi reporter yi ba ci animateurs yi soxna Kayre du ñu la fàtte allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla may leen fan gudd ak wér gu yaram barke seen liggéey ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum yéen mbokku jullit yi mbokku taaliba yi man jeetaal maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak sattam di leen wax seen ñaan egsi na dem nañ ci jàmm ñëw ci jàmm lépp lu ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu fulal ñu ko ñu bokk koo yéen gannaaw loolu nag ñoo ngi sant Alaaji Xaatim ci turu ujaa ji ak euh, Abdou Salaam Alaaji Abdou ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla guddal seen fan wéral seen seeni cër ak mbuub taal ndax wax dëgg yàlla ma mbooloo mu toll nii jiite ko yombul ndax kenn ku nekk ak jikkoom te vraiment wan ngeen ñu ak yaa ak yëg ak mbaax amuñu lenn loo xam ne naqari nañu ci jour bi ñun ba demee ba def sunuy farata dafa mujj mel ne ñun ñoo ngi suñu biir euh, kër falan nekk yëguñu dara dara manqué wuñu macha allah kalaasu Ibrahima Thiam gi lekk ceeb rek lan fa nekkee woon ndax ceeb yi neex lañ leen daan indi di tàngal ataaye di indi ñu mel ne ñoo ngi ci suñu biir kër yi xam nga loolu neex na lool fu nu toll ñoo ngi kaf ñoo ngi ree di jigéen di nit ñi ñëpp ñemuñu kenn ku nekk ak jikkoom te teewul la mbooloo may bëri bëri bëri ñoom géré nañu ñëpp kenn koo xamee ne mën nga ne lii moo ma fa naqari ah man de déggu ma ko fa man de wax dégg yàlla am aw ma lenn lenn lu ma fa naqari lenn rek laa xam ne su fekkoon ne mën naa gën a gën a yaatu muy communication bi ndax léeg-léeg day am yoo xamee ne sama classe gi duñu déglu groupe yi yéen léeg-léeg communication day am te duñ ko dégg xanaa kuy wax ci loolu rek mën a wax waaye macha allah laf cat ñi nga xamee ne demaguñ yal na leen yàlla yóbbu ñi nga xamee ne demoon nañu yal na leen yàlla yóbbu yàlla bu mu ump kenn ci dara daraje yonent bi ñoo ngi ñaanal yéen xale yi mag xale mag du fa dem xale moo fay dem ku ko mën teel ko def ku ko defuti dënga ko récc lépp lu nu mën a daw ci àdduna dem siyaare ji yonent bi moo gën di farata kon nag yàlla na leen ko yàlla defal yàlla bu mu ump kenn sama ajaa yi ma nga xamee ne ñoom laa àndandool ajaa ndey sumaare tajaar Mbaye Asou Dieng Adja Khady Ndaw ñoo ngi maa ngi leen di jottali ñoom nee sant na leen gërëm na leen yéen ñi nga xamee ne yéen ne woon suñu kanam amuñu lenn loo xamee ne daal naqari nañu ñoo ngi ñaan suñu borom kër yi ñi demagul yàlla na leen fa yàlla yóbbu ci daraje yonent bi sant nañ leen gërëm nañ leen jërë ngeen jëf ngeen baal ñu àq ndax xam naa ne sama classe gi heure bu ne ñi ngi woo Abdou Salaam ak Alaaji Xaadim di leen lakkal lool heure bu leen ñu ngi ci yéen man moom maa ci raw Ibrahima Thiam nag ma baal ak sololoon naa la lool maa ngi jéggulu nag ci yéen ñëpp jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di leen ndokkeel di leen ziar di ziar ujaaj yi soxna yi ak euh, góor yi di ñaan yàlla mu defal leen xajjan mabruuran Eh, wa shaayan maskuuran di sant ujaay yëpp rek waaw man nag su ma sayoon dañ critique day am parce que mooy tax boo liggéey nga xam li li la manqué waaye bu ñëpp ne baax na rek da ngay jàpp ne na fekk am na ñuy ñuy ñuy lamentaare ñuy eh, sant nag mun nga ñàkk mbooloo mu ànd dañuy sant Abdou Salaam mi nga xam ne moo àndoon ak ñun euh, mën naa wax ne léemu mat vingt ans yoo ne ñu ngi euh, ànd bu rafet la maanaam bu ma waxee du ko dindi su waxee du dindi donc ñaar bu ñuy ànd rek il faut ñu respecté waaw loolu ñu koy doxal suñu diggante moom mooy comme ni ma koy woowee rek mooy sama sëriñ xam naa du nangu waaye mooy sëriñ bi di gërëm nag Ibrahima Thiam Ibrahima Thiam wax dëgg yàlla. Euh, dafa meloon ne moom mooy organisateur ak euh, ajuma mi parce que ku lim da nga mais ñi ñi dëkk Treviso nga xam ne mën nañ yaakaar naa neuf mën nañ Veneto ñi fi dëkk yaakaar mën nañ quinze parce que euh, Vicenza am na Bassano am Pordenone am mbo kenn ku nekk da ngaa ci mbir mi ba nga mel ne yow mbir mi sa biir la waaw doo koy tàmbalee ci ajuma mi wallahi Ibrahima Thiam Moustapha Tall lu tudd ci Abdou Salam Gaye mu dëkk Bassano ndox mu ñu fa naan ndox mu ñu fa naan lii du début à la fin moom moo ko jël donc loolu euh, jar na di wax bokkuma ak jigéen ñi ñoom jeetaal xadi ndaw nday astu amee nday sumaare ñoom ñoo nekkoon ci waañ duñ togg mais bu kii togg indee ñoom ñooy séddale ñooy raxas ba ci waa Bergamo ku ñu wax Fat Ndaw ak euh, Rokhaya Guèye ñoom ñëpp maanaam su ma limee day juum mbuub taal ñoom ñëpp daal wax yàlla ñun dañu mel ne ñun daal nekkatuñ ci dara donc euh, loolu leen war a gërëm di leen sant di ñaan nag di ñaan yàlla di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy man tey def euh, yéen ñi nga xam ne demagu leen yàlla na leen yàlla yóbbu di ñaanit xale yi nga xam ne ñoo fi nekk xale yi nga xam ne ay ndaw lañ toll ci vingt ans jëm vingt cinq ans Euh, seen i wayjur yaakaar naa mënatuñ wala ñi ngi gën néew doole ñoom nañ dimbale seeni way wayjur kenn ku ne mën a yóbbu sa wayjur loolu dañ koy ñaan xale yi tey geste bu rafet la kenn ku ne soo sañaan yóbbu sa wayjur màkka ku ko man ku ko man soit muy góor muy jigéen nag di ñaanit ñun ñi nga xam ne ñooy jiite euh, man ak Abdou Salam mbir mi métti na lool métti na lool métti na xëy nag li ci biir maanaam ñëpp na xam ci biir bu nga xam ne métti na ñoo xam yéen ngeen eh, dolli ñu ñaan ba mbir mi gën a oyof ba yàlla jox ñu quota boo xam ne dafa ñu doy parce que quota bi ñu am soixante-dix personnes lañ am soixante-dix personnes yi moom la ñu am ñu nekk 153 personnes donc da ngay obligé jël xaaj 80 et quelque di ko dugal ci ay ay privé donc loolu day métti privé bu nekk da taxaw fu nekk da xool ba xam ñu ngi ci condition yu baax wala nekkuñ ci condition yu baax bokkut ak li nga gérer 70 yi nga xam ne yaa ngi koy gérer kon ñu ngi gërëm ñëpp di jox euh, doyen Abdou Salam mu nuyoote ak yéen maa ngi sant yëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp ñun daal mënuñu leen yàlla rek moo ñu ñun mënuñu leen lii ñuy def it yàlla moo bëgg loo ñu di ko def. waaye yàlla moo ñu jàppale mu ñaan yàlla mu gën ñoo jàppale di jaay si wujud wa alami shuhud wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon xam naa ñu mottali rek dama fàtte dama fàtte sëñ Mbàkke Siise mi waaw ndax euh, kenn ku ne am na rôle boo yoroon moom moo yoroon rôle café gi moo yoroon café gi waaw waaw <laughs> moo daan indil kii ndékki waaw donc moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla mu defal ko xajjan mabruur ñu ngi ziar wax dëgg yàlla kenn ku nekk eh, lii sa waru war a def nga ko waaw xëy na ñun lay manqué ci ñun la waaye wax dëgg yàlla ñoom ñëpp li ñu war a def rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوان المسلمين جميعا نحييكم بتحية الإسلام وعلى وهو السلام عليكم نقول لك إنه يمكن أن نكشي ترم جلن وحي السلام عليكم ورحمة الله ñu ngay sant yàlla nag bu baax du julli waaye ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo ñu may li ñu am tey muy kàttan li yàlla def ci ñun doole gi def ci ñun xam-xam bi def ci ñun mënal ñu amal ñu bañ mën a def lii comme ni ko sëñ bi waxee léegi rek du suñu man-man walla suñu coobare wala suñu kàttan wala suñu lenn yàlla moo tànn ci biir jaamam bi ay jaamu yàlla na leen dénk naa leen ñii del leen defal lii ñun nag ci suñ bopp ñun ay jaam lañ yoo xam ne yàlla moo ñu tànn ci biir jaamam yi daf ñuy jaamu jaam yi ñu nangu loolu nag ndax bu la yàlla tegee lim la teg te muy lu baax yow boo dee ku baax da sant loolu ci yàlla ndax bi ñu yàlla tànnee ci mbooloom senegal yi gënuñ fi xam gënuñ fi man gënuñ fi dara ñi ñu ëpp xam-xam ñoo fi nekk ñu gën a xam ñoo fi nekk waaye bi yàlla seddee cër bi jox ñu ko kon loolu duñ mën def la in zakartum la azidanakum rek lañ mën a def mooy sant yàlla ñaan ko mu dolli ñu ci li nga xam ne moom la ñu may kon bi ñu santee borom bi tabaraka wa ba pare nag dañu wan ne la man lam yaskuri naasa la yaskuri laaha ku santul nit ñi doo sant yàlla kon bu la yàlla boolee ak i nit nga def ak ñoom ay fan lu man ñaar fukki fan ak ñaar walla ñeent ñoom ñëpp kenn ku ci nekk di téeméeri nit ak juróom fukki nit ak ñetti nit muy ñun ñaar ñu nekk seen kanam bu boobaa ndimbalu yàlla moo ca nekk ak ñoom it seen ndimbal nekk na ca seen ak dégg nekk na ca moo tax ñu mun a ànd ak ñoom waaye wallaahi su leen neexoon kànd bi du demee noonu. ndax ñaara man kenn te ñun kenn lañ ñoom ñuy téeméer ak juróom fukki nit ak ñetti nit kon bu yàlla dafay tawfiix ak taysiir ñu màng ànd ak ñoom dem seeti yonent bi sallallahu alayhi wa dem ci néegam bu tedd bu sell boobu yàlla teg ñu ci seen kanam pour ñeen ne wax manasik yooyu fan la nekk yàlla may ñu xam ak man ak tal bañ mën leen ko wan ci ñoom ñu nangu loolu kon ñooñu jar nañu ñu leen jërë ngeen jëf kon képp koo xam ne àndoon nañ yow bañ dalee aji màkk ba léegi nga xam ne ñu ngi dugg ci ñaar fukki at ak juróom yi muy mat ñuy dem di ànd ak doomu aadama yi fii ñi ci ëpp ñëpp ànd nañu ak ñoom e ñi ci ëpp ñëpp nag seen ak mbaax moo tax ñu toog di wax ñun suñu mbaax waaye ñun ndey kenn ku nekk li alxuraan di wax bali insaana ala nafsi basira moo fi nekk kenn ku ne yaa xam sa bopp waaye nag yéen a baax moo tax ngeen ni ñun dañoo baax kon nag ki ne dañoo baax moom moo baax ba pare kon ñu ngi ñaan borom bi tabaaraka wa taala bañ dalee ak màkk ba léegi bañ juddoogul ba bisu tey bi képp ku mës a dem taxaw ci bunt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw ci néegam bu tedd boobu loo fa mën a ñaan ak lu mënalul yàlla ko yàlla ful ci kem baaxam googu te wàccee ko ci daraja yi yontu bi sallallahu alayhi wa jox ko mbindeefam yi nga xam ne ñoo fi nekk kon sant nañu suñu sant duñ ko yemale ci ñi ñu àndaloon ren dañ koy boole ñëpp ndax ñi àndoon daaw ñoo tax ñi ànd ren ñime te ñiy ñëw ren ñooy tax ñi ñëwaat di ñime kon nag cant li dafay aajo ñu boole ko ñëpp kon yéen ñëpp na leen yàlla fay ya na leen yàlla dimbale yal na leen yàlla jàppale waaye nag nit ki su fekkee ne dafa toog ci béréb nekk faa koo xam ne moom moom bi mu tàggoo moom démb ci waxtu wi ñu ngi ànd ak ñoom kon ànd boobu ñu toogaat fii matagul 24 heures kon jar nañ ñu wax leen ñooñu nan lañ nekkee woon ak ñun nekkin bu du dara lu jàmm ak salaam te yi ñaar rek la doomu aadama mën a am nekk ci jàmm ak salaam bu jàmm ji amee na xam ne salaama cay topp te loolu kenn mënu ko may kenn lu dul nag nit ki moo koy may moromu nitam te ñoom def nañ loolu eh, jigéen ñii ngeen di gis ñu demoon daaw ñu dem ren ak ñi demoon yeneen ñi at yi ñoom ñëpp dafa mel ni la ñële doon def la ñu paas ñii ñu def ko kenn ku ci nekk yàquloo ci dara waaye wax dëgg yàlla sant nañ leen di leen ñaanal ñoom kenn ku nekk ci néegu sëyam yal na ko yàlla wàcceel ngërte lu gën a baax lu gën a sell lu gën a tedd yàlla mën na loolu yal nañu ko yàlla defal góor ñi leen ilifit yal yàlla defal leen may leen liñ bëgg ba ñoom i tamit ñu mën a wut seeni borom seeni jigéen jigéen ñi mën a wut seen i borom kër bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et li sëñ Xaadim wax nag parce que moom rek moo fi nekk ñun nekkuñ fii ay jaamu yàlla la ñu bu ñu yàlla booleek jaam yi li suñu li suñu doole moo ñu déggoo mën a wax loo xamee ne kenn du ko mën a dindi ci ñun ñaar bu waa mbir yi dafay jëm kanam te lii rek moo ñu boole moo ñu tënkale kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yéen ñëpp yal yàlla defal leen jàmm yal na ñu yàlla defal jàmm yan yàlla wàcce jàmm ci ñun yan nañu yàlla yërëm te yiir ñu bi jaay seydil wujud kenn ku nekk ci ñun moo xam li nekk ci xolam moo xam bëgg-bëggam lan la budul mooy yàlla yan na ko ko yàlla defal ci barke kaaba gi ñu bàyyi koo démb kenn ku nekk ci ñun li muy uut muy alal di ko uute yan na ko ko yàlla may te muy alal ju lew te yàlla musal ko ci mooy yàlla yan na bu mooyee yàlla jooju alal yan na bu mu ci lor benn jàmbur yan na bu mu ci wan kenn nekkoon ko nii laa mel yan ñu yàlla def ñuy jaamam te yàlla def ñu ñuy jaamu yàlla te yàlla boole ñu ci jaamam yi mu tànn te yàlla def ñu ñuy jullit kon kenn ku nekk ci ñun ñu ngi wax ne nañ laabal xol yi te jaamu yàlla xam ne yàlla rek a fi nekk lu dul yàlla du leneen te yàlla rek ay yàlla kon yàlla rek lañ am kon nañ gëm ne kenn ku nekk ci ñun na xam ne yàlla rek la mën a sukkandiku ci la mën a jàll ñu ngi leen di ñaanal yàlla nag di jaale xale bi nga xam ne moo fi faatu woon suñu gannaaw daanu woon ci géej gi yal na yàlla jéggal ko yal na ko yàlla yéegal ci barsax sam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla fay ko ay jëfam mandaxa yi mu dese ci àdduna ci ndawam yal ko yàlla dugal ci ay waajuram ñu di leen jaale yi tamit ki nga xam ne moom lañu àndaloon muy Cheikh Tidiane Ba mi nga xam ne moo jiite woon délégation de Dakar nga xam ne Abdou Aziz nga xam ne keroog ba muy faatu bi muy julli tàkkusaan ba sëgg siggiwul fa la ko yàlla moomee ci màggatul mu karama kooku tamit ñun ñëpp war nañ ko mën a jaale ndax xalifa la général la kilifa la ci senegal kon ñun ñëpp ko bokk kon sëñ bi yéen ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen jigéen ñi ñaanal nañ leen yàlla ñu ngi leen di ndokkeel di ndokkeel góor yi di ndokkeel suñu bopp yal nañu yàlla defal jàmm ba déwén ci jàmm képp ku am yéene bi yal na yàlla mottali sa yéene bi jaay say dël wujur wasalaamaaleykum wa kon yaakaar naa ne lépp mat na lépp luñ fi wax mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu dafa am rek loo xam ne danañ ko ci dolli tuuti te muy jug bi doomu aadama di jug di dem di aji màkka ñu bari dañuy wax ne màkka du soppi jikko waaye man dama ne mën na soppi jikko waaw ki nga xam ne nii dafa yàgg bëgg sayyiduna muhammad yàgg ko mbébét ci biir xolam yàlla def mu dem ba dend ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ca jàkkaam ja képp ku teg sa tànk ci jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la donte bi yonent bi sax mi ngi ci xolu képp ku ko bëgg waaye rawatina nga jub jéggi ay jéego dem ba fa mu tëdd nga ne da koy ziyaara ji ah, wax dëgg yàlla. am na lu nga xam ne nii danga ko yëg ci yow ci sa bopp te yëg boobu ngay yëg yàlla mën na cee def tawfiq ba nga xam ne nii mën dina soppi lu bari ci yow borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu leen yonent bi indil na ngeen ko jël waaye lépp lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi yow nga ne da nga soppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo bëgg ci sa biir xol ba tax mu jaral la nga jub jël xaalis bu bëri def ko ci dem tukki tukki xam na ku dekk xam na tukki metti na nga dem ngir rek ziyaare ji ko dellu siwaat war ngaa bàyyi xel ci lépp lu nga xam ne ni ngeen sallallahu alayhi wa sallam tere na ko na ab jullit waru ko def nga bàyyi ko xel bu baax a baax waaye jóge fi dem màkk aji dellu soppiwul ci yow luy weddi dee fa fa nga nekkoon fa nga nekk boo fa nekkul sax yaa ngi dellu ginnaaw loolu màndargay texee di la màndargay texee di la ndaxte kat waykat ba dafa wax ne taasil ilaha wa anta tudhiru xubbahu hada la amri fi lqiyaasi shaniun aw badiun fi riwayatin uxra law kaana xubbuka saadiqan la ataata inna al muhibba liman yuhibbu mutii mu ne yow fu ñu la fekk yaa ngi wax ne yaa ngi mooy yàlla te nee da ngaa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fu ñu la fekk yaa ngi mooy yàlla di feeñal la yow da nga bëgg yonent bi déedéet sa bëgg yonent bi du dëgg ci yow ndax waxkat dafa ne law kaana xubbuka sadiqan la ataata bëgg gi nga bëgg yonent bi sallallahu soo ko bëggoon da nga ko topp ci li nga xam ne nii moom la santaane ndaxte yonent bi kat deful lu dul dëggal santaane li yàlla santaane li mu bëgg ak li mu tere ndaxte innal muhibba liman yuhibbu muti' nit ki li mu li mu bëgg rek moom lay topp kon sang boobu nga xam ne nii joxe na dundam joxe bakkanam lépp ngir rek laa ilaha illa allah taxaw dëgëral ko muhammad rasulullah mu jaral ko lu nekk mu jaral ko ñu sànni ko ay xeer ba génne deretam mu jaral ko mu gàddaay jóge makkatal mukarrama jëm madinatul munawwara ak tumaranke gi nga xam ne moom la tugooraan ci yoon bi lu nekk mu def ko ngir lan ngir rek yëkkati baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah yow yàlla def nga judd ci coono boobu yëpp fekku la ci ngir la na nga fexe ba li nga xam ne nii moom mooy yëwaleel sa diine nga fexe ba nekk ci te lépp lu nga xam ne nii moom mooy def nga safaanoo ak loolu nga moytu ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo laaj ne ko ndax jullit dana sàcc mu na jullit dana sàcc ndax jullit dana njaaloo mun a jullit dana njaaloo jullit dana naan sàngara mun a jullit du dana naan sàngara jullit dana fen yonent bi ne jullit du fen ab jullit du du fen nee nañu yàlla dafa la boole ak ay malaaka yoo xam ne nii mi ñi nga ànd ak yow boo fenee dafa am xet boo xam ne nii moom ngay dégager malaaka yooyu dañuy daw ba xet bi tam ñu dellu siwaat ci benn fen rek boo xam ne ni fen nga ko gars yi nañu seet ñun ñaata yoon la ñuy fen ci bés bi nga taxaw ci kanamu yàlla allahu akbar ne bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga kulloo doon teg sa borom ne ko iyyaka yow dong yow yàlla na'budu la ñuy jaabu wa iyaaka yow dong yow yàlla nastaino la ñuy sàkku ndimbal léeg-léeg doomu aadama yi dana jaamu bakkanam te du ko yëg doomu aadama bi dana jaamu bakkanam te du ko yëg dana jaamu bànneexam te du ko yëg dana jaamu jabaram te du ko yëg dana jaamu doomam te du ko yëg dana jaamu sëriñam te du ko yëg nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax ndaxte yonent sallallahu alayhi dafa wax ne laa taa'ata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq kenn du ku ñu bind ba tax nga mooy aji bind ji kenn du topp ku ñu bind ba tax nga mooy aji bind ji yonent sallallahu alayhi fajar julli nga tëdd fajar nelaw yi neex lool nga continuer nelaw te bi ngay tëdd danaa ko lëranteeg sa borom ne ko kat dinaa jug fajar jaamu allahuma aljahtu dahri ilayk wa fawattu amri ilayk la manja wala manja illa ilayk allahuma in amtakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi salihina min ibadik nga jàng loolu bi ngay tëdd seytaane ne la alayka laylun tawilun farqud yaaqidu seytaane ala rasi ahadikum salaata uqada nee na boo demee ba war a tëdd nelaw nee na seytaane dafay ñëw fas ay fas-fas ci sa bopp ne la alayka laylun tawilun farqut ne la guddi gi yàgg na tëddal nga nelaw nga dall nga noppaliku fajar jot ñu ñu ka ñu ndodd ne allahu akbar nga tëdd di nelaw da nga waroon jug jóg julli kon boo taxawatee ne allahu na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in malaaka dañ naan na fen nga fen nga gars yi dañu bàyyi nañu bàyyi xel suñu borom suñu dëgganteeg suñu borom dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a nit ki dana fen ci bis bi ay fen yoo xam ne ni du xam fu mu koy nettali te yow yaa kóllërte woon rek sa boroom yaa waxante woon ak moom ne ko iyyaka na'budu yow yàlla yow rek lay jaamu boobu yaa ngi jaamu sa bakkat te yëguloo ko fajar jot na jugoo julli nga tëdd di nelaw dala ndax nelaw yu neex boobu yaa ngi topp sa bakkan te yàlla nee na wala tattabi'u l-hawa fa yudillaka an sabilillah yàlla nee na bul topp sa bakkan boo ko defee rek dana la jaare la fu nga xam na ni du neex borom bi tabaraka wa taala kon yaakaar naa ne bëri na yu nga xam ne ni doomu adama bi da koo kóllërante digganteem ak boroomam fasante kóllëre digganteem ak boroomam ne yow yàlla lii kat dinaa ko sellal dinaa dinaa ko jaamu dinaa ci bàyyi xel nañu fexe ba yooyu yëpp ñu ciy bàyyi xel ngir sunu digga ak suñu borom mën na neex mën na ñu mën a déggoo ak moom mën a juboo ak moom yaakaar naa ne boo bëggee sa ak sa soxna wala sa doom nga juboo ak moom déggoo ak moom da seet li nga xam ne nii boo ko defee mu neex ko nga def ko ngir nga mën na juboo moom yàlla nag pour ñu juboo moom lenn rek la mën a def mooy fexe ba ñu mu ñu sant ñu nekk ci sunu kéemtalaay kattan du ko jaamu seet li nga xam ne nii yàlla tere nañu ko ñu daw ko lu ñu mën ndax nee nañu nit ki li la yàlla tere bàyyi lépp waaye li mu sant loo ci mën sa kéemtalaayal kàttan nga def naam nee nañ sax li la yàlla sant yëpp mënoo ko def waaye loo ci jéem sa kéemtalaayal kàttan nga def ko waaye li mu la tere bàyyi lépp. kon ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla nañu yàlla dimbali. yàlla nañu yàlla jàppal boppam te teel ñu boppam ba nga xam ne ni lépp lu nga xam ne ni neex na ko moom borom bi tabaraka wa ñu nekk ci ndaxte kat dañuy wax ne looy bañ dee fekk la ca na nga ca génn balaa muy teel ndaxte kat nee nañu dee dafay bette al mawtu yati bagta dee dafay bette te kenn kenn ku nekk xamul sa bis kañ la xale bii gaañu tey ku ko waxoon ne ko dangay dem danaan la déedéet waaye soob na borom bi tabaraka wa taala mu jaarale foofu ak demam yàlla doon nooflaayam yàlla na ko yàlla yërëm kenn ku nekk nag sa bis dana ñëw boo gisee lu tax ñu soloon suñu bopp ci jaamu yàlla dem màkka woor sàkk asaka loolu lépp ngir lan ngir am ngërëmu borom bi tabaraka wa taala wa ridwanun min allahi akbar yàlla nañu yàlla gërëm yàlla bu yàlla seet suñu bàkkaar yi nga xam ne ni moom la ñuy def yàlla ñu yàlla atte ci yërmandeem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko faral di ñaan nee na kat jëf waaye bu kenn yaakaar ci yéen ne jëfam dana ko yóbbu aljanna ñu ne ko xatta anta ya rasulallah mu ne xatta ana illa an yataxammadani allahu bi rahmati mu ne lu dul yàlla gaawee ma ak yërmandeem kon ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp ñu ngi nuyu di ziar sunu sëriñ sëriñ fàllu mbakke di ko dalal di ñaan borom bi tabaraka wa taala yal na ko yàlla dëgëral ndaxte kat wax dëgg yàlla mi ngi ci yoon mi ngi ci mission bi nga xam na ni moom la ko maamal bàyyil fépp fu nga xam ne nii ñu ngi fay wax yàlla nee na qaala allahu qaala rasulu ma nga fa teew di fa wax luy jëriñ doomu aadama yi luy jëriñ nit ñi ci lislaam yàlla ko yàlla gën a dëgëral ñu ko ñaanal mu ak moorom ñi nga xam ne bi tabaraka wa taala def ne leen ñuy ay sang yal na yàlla sëmbërtal yërmande bi seen kaw ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla na yàlla defal dégg ak topp aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min saa'iri muslimin kulli dambin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dañoo fàtte rek. alladina euh, aataynaahum alkitaaba yarifuunahu kama yarifuuna abnaahum kaar bi nga xam ne moo ñuy jël fii yóbbu ñu mal benn déllu si waat Pape Dieng moo koy dox ren aussi boo ko defaat ndaje bi aussi boo ko moo ko créé woon daaw ren aussi boo ko def kon ñu ngi koy sant di ko gërëm euh, boole ko moom ak soxna Kay nga xam ne moo ñuy ñooy ànd yóbbu ñu jël jël si waat ak Omar Ndiaye muy A2S ñu ngi leen di gërëm leen di fàtt di sant Rokhaya Ba Touré muy conseil général verbal bi nga xam ne mooy jóge fii en dem direct euh, affaire étranger jóge fa dem délégation pèlerinage moom moo koy def boole ak téléphone boole ak ay waxam euh, di sant aussi euh, Cissé policier bi nga xam ne mooy def passeport yi képp kuy dem Màkka boo ñëwee taxaw dañ ngeen jox passeport ci saasi di sant ndey ñu rek nga xam ne mooy récupéré passeport yi ñu ngi leen di sant di euh, kon Pape euh, Dieng mention spéciale ñu ngi di la gërëm yàlla yàlla euh, fat di sant soxna yàlla booba léegi ñu ci jàpp di ci wax di ci jëm ak yenn yi ci biir yoo xam ne jarul wax wasalaamaaleykum ñu jox Ablaye Diaw toog ci 3 minutes ci turu sëñ Fallou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 di nuyu ñi fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kàddu gi nag sunu sëriñ sunu xarit sëriñ lu Mbàkke mi toog wax ne wax dëgg yàlla sonn ndax fee ñu jógee gis nañ lam fa daj moo tax waaye amoon na yéene waxal ko boppam waaye mu ne naa ko ko jottilil néewoo ko gàtt nag yàlla na sunu borom defal ak dégg ak topp sëñ bi nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen ziyaare it sunu doom sunu jarbaat sunu lépp mu jóge fi fan yi tañ ko doon ñaanal tey mi ngi leen koy ziyaare yéen ñëpp nee na xam na ne ñoo ci bokk yem nee it ñun ñi fi desit nañ bàyyi xel na ñu ngi ci yoon wi yàlla na yeex kon sëñ bi nee ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogaloon ñu demoon siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe aj maanaam faratay haj sëñ bi nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen ñaanal yàlla na leen jig ba mu leen ziyaare ñaanal leen na leen yàlla leen jig ba pare nee na mi ngi leen di moytuloo jëmm ji nga xam ne yàlla ko bind te dara du liggéeyam lu dul yàq te mooy seytaane nee na fi daje. dañoo gëm na ca yonante ba ngeen jóge ñu ñëw di taasu ci barke bi yéen ñi dem ca yonante ba sallallahu alayhi wa sallam nee na kon ñoom wàcc nañ waaye yéen ñi nga xam ne yéen a demoon nee na ngeen moytu te xam ne li ngeen def na ngeen ko jàppe ne ngeen toogoon fii jàkka ja noddu ngeen dem joxe waxtu farataw julli bi wàññeeku waat nee na ngeen bàyyi xel lépp loo xam ne adduna la ak i gaayam boom leen xañ mukk la nga xamante ne moom ngeen fa jëlee na ngeen ko sàmm foo xam ne fii dara lu ko yàq du ko fa fekk loola nag nee na dara ëpp ca doole wala dara rawu ca fa ngeen demoon la ngeen fa jëlee su ngeen ñëwee la ngeen nekkoon ci lu baax ngeen yokk ko lépp loo xam ne lii luy naqari yàlla lay doon akub yonentam ngeen moytu loola te moytu àdduna ak i gaayam ndax kat dem jëli lu baax ba pare ñëw foyee ko ba mu yàqu loola yàlla na nu ci yàlla musal sëñ bi nee na mu ngi leen di moytuloo loola nanu sax ci siraatal nañu te jàmm nañu suturaalante ci sunu biir nee na mi ngi leen di ñaanal yal na leen jig yéen ñi demoon ñi demagut te bëgg a demit yal na yàlla sottal lépp nee na it ñi nga xam ne sunu borom dogalagu ko ci ñoom nan muñ te sabablu te xam ne ku fa yàlla woo danga wuy ji jarut kër kër yi jarut def loo munut nanu teey ndax mooy juróomeelu ponk te moom rek la yàlla wax ne li man istataa ilayhi su jotee sart yi def daje ci yow demal defi ko te ñëw téye sa bopp su sart yi dajewut ci wàcc na la coono amu ci salaamullahi aleykum wa rahmatulah asbuna allah wa nihmal daanaka bu ay kàddu jibatul yaakaar naa ne war nañu mën a ñaan te yeewu mbooloo mi yaakaar naa يسبحون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الايات وذكرنا بما دربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات انك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القران وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو او نسيان او تحريف او تقديم او تاخير او زياده او نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أم إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعاده والبشاره والامان ولا تختم لنا بالشر بالشر والضلاله والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفله والكسلان وامنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن اكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت اقدامنا على الصراط واسكنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا الى جنات النعيم اللهم اجعله انسنا في الوحده ومصاحبنا في الوحده ومصباحنا في الظلمه ودليلنا في الحيره ومنقذنا في الفتنه واعصمنا به من الزيغ والاهواء وكيد الاعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اقتم بالسعاده اجالنا وحقق بالزياده امالنا وقرن بالعافيه غدونا واصالنا واجعل الى رحمتك مصيرنا وامالنا وانصب سبيال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقوك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمنا من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيد الوجود وعالم شهود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح جميع آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اجعل بركة ونور ما تلوناه هدية واصلة ورحمة متصلة إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأزواجنا وذريتنا أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا فقيرا الا اغنيته ولا جاهلا الا علمته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاحا الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا من لا تنفعك طاعتنا ولا تضرك معصيتنا تقبل منا ما لا ينفعك واغفر لنا ما لا يضرك يا من اذا وعد وفى واذا توعد تجاوز وعفى واغفر لعباد ظلموا انفسهم اللهم انا نعوذ بك من برد الغنى وجهد الفقر الهنا خلقتنا ولم نك شيئا ورزقتنا ولم نك شيئا وارتكبنا المعاصي فانا نقر لك بذنوبنا فان عفوت عنا فلا ينقص من ملكك شيئا وان تعذبنا فلا يزيد في سلطانك شيئا الهنا انت تجد من تعذب غيرنا ونحن لا نجد من يرحمنا غيرك اغفر لنا ما بيننا وبينك وما بيننا وبين خلقك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رجاء صالح ويا امن الخائفين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى لشدائد كلها يا من اليه المشتكى والمفزع yaa man xazaa'inu rizqihi fi qawlikun umnun fa inna alxayra indaka ajmacu maa li siwaa qarci li baabika xiilatun fala in rujdtu fa aya baabin aqracu wa man alladi nadcu wa nahtifu bismihi in kaana fadluka an faqirika yumnacu xaasha li juudika an taxnuta caasiyan alfadlu ajzalu walmawaahibu awsacu taqabbal minna bi barakati wa bi azamati wa bi sirri bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin munawwiri al-absaari al-aarifiina bi nuuri al-maarifati wal-yaqiin wa jaadi bi azimmati al-asraari al-muhaqqiqiina bi jadabaati al-qurbi wat-tamkiin faatixi aqfaali al-quluubi al-muwahhidiina bi faatixati at-tawhiid wal-fathi al-mubiin alladii ahsana kulla shay'in wa bala'a xalqa insaana min tiin ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين الرحمن الرحيم العزيز الحكيم العلي العظيم الأول الخديم خاتب موسى الكليم بخطاب التكريم وشرف نبيه الكريم بالنس الشريف ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم مالك يوم الدين قاهر الجبابرة والمتمردين وبيت الجاحدين ذلكم الله ربكم فتبارك الله احسن الخالقين يا من لا شريك له ولا معين اياك نعبد واياك نستعين معترفين بالعجز عن قيام بحقك في كل وقت وحين يا باعث الريح العقيم يا محيي العدام هو يا رميم اهدنا الصراط المستقيم صراط اهل الاخلاص والتسليم صراط الذين تسلوا بالهدى وفرحوا بما لديهم هب لنا اللهم مواهب الصديقين وأشهدنا مشاهد شهداء ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين بسر اللهم صل صلاة كاملة وصل سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسخى الغمام بوجهه الكريم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 bi sirri allahuma salli ala sayidina muhammadin tibbi alqulubi wa dawaiha wa aafiyati alabdaani wa shifaiha wa nuuri alabsaari wa diyaiha wa quuti alarwaaxi wa sharaabiha alfaatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaq naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim salaatan taftaxu lana biha abwaaba alrida waltaysir walcaafiyati walsalaamati walqabuuli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 subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin